beneen bi mu ne ko inna arsalnaaka kaafatan linnaasi bashiran wa nadiran loolu moom rekk ko am keneen amu ko yonent bi nga xam ne nag nubuwa kese la am soo ko jëloon teg ko ci balance jël jullit ñépp laa wax de awliyaa yéeg nujabaa yéeg aqtaab yéeg ñépp ci lañ mbokk luy jullit gëm yàlla fa some ngëm yem nga jël yonent boobu teg ko ci balance te amul risaala jël nit ñépp ñi amul risaala te duñ yónnant teg leen ci balance yónnant bi daaneel leen yónnant moo dul caaxaan nit ñi nag dañ ko banaliser parce que dañ ko xamut yàlla jël ci cent vingt quatre mille yónni ko yow nga toog fii ci senegal xamoo ko dul Serigne Touba El Hadj Malick Cheikh naa Cheikh Sadbou Limaamu Laay ñooñu nga xam rek bëgg a weddi ñëpp du dëgg gëmal ki nga gëm. am nga ci droit gëm ko bépp gëm waaye nag ormalal ñi ci des gëmal ñépp gëmal ki nga gëm waaye ormalal ñi ci des lii rek mooy mooy lii rek mooy mbir mi nekkal murit saadiq waaye ormalal ñi ci des nekkal tiijaan xaqan waaye ormalal ñi ci des nekkal laayeen bum la neex waaye ormalal ñi ci des nekkal ibaadu rahman nekkal falaax nekkal lu la neex waaye ormaa leen ñi ca ndax bu dul dara sax wala xad karam naa bani aadama yàlla ne maa teral doomu aadama kon ki yàlla teral loo defati ci moom lu dul teraanga rek tooñ nga yàlla kon ngeen baal mu ma continuer ci lële rek yàlla ma maam aadama nag wolof ne ku ñeme dañ laa dee ne ko maa la wax acca yaa aadama an bi um acca waxal ma malaaka yi liñ xamutoon bi asmaa yi ci turu haula yi ma bind wax leen ko maam Adama nag commencé di tiitaru ah yéen malaaka yi yéen ngeen baal ma ci waxi nii li ma si la kan di wax ndax kii yee tax yéen ay koo ngeen rek yéen xamu leen lii déedéet lii mooy siège ci la nit di toog ëllëg xamu leen lii déedéet lii mooy bool bu nit bëggee añ ëllëg ci lay yekk yéen dox ngeen rek xamu leen lii déedéet lii mooy dàll nit a koy sol ëllëg di leen ko limal par benn par jeex wax nañ ne lépp lu yàlla bindoon keroog maam aadama tudd na ko moo tax lu amati ci àddina rek nit utal ko tur lu amati ci àddina rek nit amal ko tur kon nañ jël jikko yàlla boobu ngir yàlla mooy nangoo accepter sa adversaire moo xam ci kër gi la moo xam ci mbedd mi la moo xam ci koñ bi la moo xam entre jigéen ak jigéen la mais nangul ko parce que ñépp mënuñ laa dëgg dëgmal di wax ci yow yiw mënul nekk ndax yàlla mu bind jaam ñi amu ko yàlla ñàkk ko nag ci coobareem la xam nga lu tax wa qaalatil yahuudu yaddullahi maxluula lu tax yàlla ne maa lank xullat aydihim bal lu inu bi maa qaalu wa lu inu ban bi maa qaalu bal yi dañ toog seen xol yi jeex xam naa li am jam jamono bi rek pauvreté topp leen ñu ne yàlla bindi jaam ñi waaye ku loxoom bi dafa dagg fii te alxuraan nanga ko indi pourtant ñu di ko jàng wa qaalatil yahuudu yaddullahi maxluula ñoom waxuñ ne loxo bi dafa dagg de xam nga luy maxluul ñu ne yàlla dafa gëx loxoom bi maanaam nii la ko def takk ko ci loos bi ndax bañ a joxe wa qaalatil yahuudu yaddullaahi maxluula nii mooy gëx ñu ne yàlla nii la def ci loxo loxoom bi ci loosam yu takk ko ndax bañ a joxe yàlla ne waxuñ dëgg walo inu bi ma xaaloo yàlla ne rëbb naa leen nag ci li ngeen wax ndax mag mu toll ni man yàlla ngeen naan dama gëx sama loxo bi bal li fi nekk yaddaahu sama ñaari loxo yi man yàlla mu ngi ne bàcc jëm fépp waaye yun fi dama koy gute kay fa yashaau nim ma soobee man yàlla alaaji Cerno Saidu Nuuru alaaji Abdul Aziz moo ko nettali ma dégg nee na yàlla mënul séddale dafay jël benn mu jox ko benn lu bari mu jox ko benn nit mu ne ko seetal nooy def ak ñi ci des mu ne yàlla séddale la gën a tële day seet lu bari xëpp ko benn nit di seet nag ni muy def ak ñi ci des alaa jab du ne mu dal ko digganteem ak Cerno Saydu Nuuru mu ne dañ dem jóge fii ànd ak mag ñu bari dem Côte mu ne bi ñu demee Côte d'Ivoire am fa semaine lu ñëw ci teraanga rek alaaji Abdou Saïd nu ne jox leen Abdou te alaaji Abdou magu ci lu ñëw rek mu ne jox leen Abdou ndekete mag ñi am nañu ci mer Cerno Seydou Nourou yëg na ko waaye mu ne patt rek sëñ Abdou ñun ñu dem benn gannaaw suba la ñuy ñibbi mu ne waaw ñu waaj nag ndax gannaaw suba la ñuy ñibbi mu ne ca guddi ga sëñ Abdou nett bi da baax mu ne ca guddi ga ma ñëw rekk indi ne ko Thierno Mayem comme dañuy ñibbi gannaaw suba li nga ma fi jotoon a dënk yépp a ngi nii bés sàngam lii nga ma joxoon mu ngi nii bés sàngam lii nga ma joxoon mu ngi nii ba biig lii nga ma joxoon mu ngi nii bismillah mu ne laa Thierno Seydou ne ko Abdou séddale ko mu jóg sa ñab doy nettali mu ne ma jóg alaa Thierno Seydou am diw am diw am diw am diw am benn jeex takk mu ne ko abdu ana sa bos mu ne ko ma des ak yàlla mu ne Cerno Seydou Nourou xool leen rus ngeen de mu ne xool leen ñoom ñu rus ngeen de man Seydou dama def séddale yàlla abdu mu xam li yàlla bëgg man dama jël yépp ma jox abdu abu abdu moom xam na li yàlla bëgg mu jox leen moom mu ñàkk waaye yàlla dina ko jox lu ëpp li ngeen am mais lii rek buñ ci jàngoon séddale mu baax ah, xamoo séddale xañ sa bopp mooy cër bi gën a rëy ci sét cër ci cër yi boo xañee sa bopp yàlla lay joxal boppam te ku yàlla joxal boppam yaay ëppale ñi nga jox ndax yàlla li mam du jeex waaw ah, ku yàlla joxal boppam yaay ëppale ñi nga jox kon Haji sa lii rek laa bëgguñu ñu comprendre ko nañ wàññi buñ bëggee yii jikko yu bon yii lëjal ñu wit mu dëñ benn solution dong la am nañ bëggante laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsi loolu rek ay garab gi kenn ku ne na jàpp ne ci seetu la taxaw boppam rek lay gis ku gis sa bopp nag Abdoulatif Guèye mii rahmatullahi alayhi wa radiyallahu moo daan wax ne kenn ñaawut kenn naqariwut baat ma ne ko lu tax mu ne ko dugg sa néeg wóoyal sa bopp mu neex waaw <laughs> ah, Abdoulatif Guèye moo ko daan wax mu ne ko rahmatullah alayhi wa radiyallahu waaw ah, moom sama ñépp xam nañ sama diggante moom léegi rek sëriñ Mouhamad ma ca ndar mu ma koy wax mu ne ku dugg sa néeg woyal sa bopp mu neex mu ne waaye ku woyal sa soxna yit mu neex ma ne ko ak ban lu tax nga ne kenn ñaawul mu ne da ngay gis ki gën a ñaaw bu taxawee ki yow ba pare dafa naan moo ne man ba dee nit ñee wax rek waaye man ba dee du gis ñaawaayam déedéet du ko gis nit ñee koy gis waaye moom du ko gis parce que moom xamul ne ñaaw na moom kañ day puudaru génn musóoru def lu ne ñu ne waaw kii fu mu jógee fekk moom looloo rafet ci moom seetu ba balaa moo génn mais yow lu ci sa yoon da nga naan musóoram gi jekkut wala war bu ko defee woon nii lay dàq xi moom ci noonu la rafetee ci moom kon dama bëgg wax ne suñ bëggee jikko yi jóg fi nañu soppante nañu bëggante nañu suturaalante ci lii dëgg na ñett yi bu amee rekk jikko yi ñuy jàmbat yépp jóg fi nañu bëggante te yàlla tax nañu soppante te yàlla tax nañ suturaalante ci liy dëgg ndax ay caaxaan kenn du ci suturaalanteeg nit taal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal fii kay fii yow ki yow ci kilifa yi nga bokk kaay kaay taal moom ci jëwriñu daayira bi sax laa ko boole moom waaw depuis ca shérif Qassim wallaay taal taal jërëjëf ana xaaja ñëw na waaw kañ keroog maa ngi leen di gis ca waaye dama la yow soxna si laa gis keroog waaye gisuma la yow dégg nag yaa nga woon ca gannaaw waaw comme ni nga def tey nga naroon a def rek nga defoon muy ca yëfu imam Mouha Ahmad si tabaarakallahu ñu ngi leen ci sant bu baax géewu diine bu xew ma gis leen waaw ñu am pas-pas leen Chérif Tall ak soxnaam jee astu tabaarakallahu ñu ngi leen di sant di leen gërëm fa ngeen jógee sori na la ak mbokk rek a tax ak dundal kóllëre Chérif Xaasim moo daan ñëw ay dara moo daan ñëw toog ngeen di lépp ci moom muy lépp ci yéen yàlla yóbbu ko bàyyi ñu fi ngeen di ñëw di ko wutu ba tey yàlla na gën di rafet lii dara dàq ko waaw lii dara dàq lii rek sedd na xol alaaji Moussa waaw lii rek sedd na xol kon nag ba ah, ka ca des bal ma ndooy suñu lëbu bu baax boobule yéen a moom ndakaaru wala waalo waalo ah la alaaji Abdu waxoon mu ne Seydi El Hadji Malick jàmbaar la de ñu ne ko lu tax mu ne ñett ñi gën a compliqué moo fexe bañ bokk géew te joteewuñ ñu ne ko kanakan mu ne lëbu waalo waalo ak ndar ndar mu ne Seydi El Hadji Malick a fexe bañ bokk malaanu wasifa te yet jógul ñu ne ko lu tax mu ne lëbu daa rëy yaakaar na ne boppam rek gis nga ndakaaru soo ba waxee ñu ne ñoo ko moom ñu ne ko ndar ndar mu ne daa yëg boppam moo tax Serigne Cheikh Tidiane si daan wax ne wóor na ma ne Serigne Cheikh ay wax de mu ne àjjana moom waa ndaray mujj dugg ci benn conférence am la ko waxoon ñu ne ko lu tax mu ne dañoo bëgg sañse ak toilette mu ne xam naa fa la ñuy nekk di sañse ak toilette ba ñëpp dugg mu ne yàlla sëpp ca balcon ba seen leen ñuy daagu ndànk di ñëw mu ne moo ñii ñan la ñu ne ko ñun suñ boxam ñu ne waa ndax fu ngeen newoon mu ne dañ doon sañ si waaw Serigne Cheikh ndeysaan lu ne wax na ko góor googu laa ilaha illallah Serigne Cheikh lu ne wax na ko ci kaw suuf loo xalaat rek wax na ko ci luy yee nit waaw boobu daf doon wax doomu ndar ni mu bëggee boppam doomu ndar boppam rek sëñ Abdallah ak sëñ Babacar mu ne daf ko jaaxal mu ne ma Maodo fekkeewu ma ko sëñ Babacar moo ma nett mu ne ma waaye aytara dara sëñ Babacar moom ba ma amee 18 ans. laa commencé di nekk ci suufu ba nim dem mu ne ma waaye ñaar moo ma gën a yéem ci Serigne Babacar Sy caractère am ak personnalité fayda bu mu amoon mu ne ma gis nga yeggoon na ci bu génnee di doxantu jigéen ju ko seen fëx daw seet foo dugg mu ne te du dàq kenn mu ne waaye gis nga man mii dama génn rek nit ñi nit ñi dab ma maxabu na nga def comment vas-tu mu ne xam nga maag sëñ Babacar bokkuñu ma ne ko góor gi yaa bëgg la bokk ak sëñ Babacar man sama xarit la woon si ñam yal na yàlla dolli leeram waaw yal na yàlla dolli leeram soor Guèye bii xam na li may wax na maa ngi moom ñoo fa doon naan ak docteur Ousmane Dieng ak docteur Yaquba fay xam nga lu tax may préciser nit ñi loo wax léegi ñu ne day kàcc wallahi nit ñi loo wax léegi ñu ne day kàcc waaye ñii xanaa ñu ngi dund ku weddi li may wax dem leen ngeen laaj leen suma fa dem te ànduma ak néew na boog Mansour Guèye bii ak docteur Ousmane Dieng gynécologue la ak docteur Yacouba Faye pharmacien ñii laa daan àndal di fa dem moo ma mayoon ci boppam moom sëñ Abdou lundi bu jot ci weer wi njëkk lundi bi njëkk ci weer wi ma dem reerandoor ak moom vingt damay daf may wax naa julli timis départ su ma jullee timis dem ñu ngi fay yegg lan ay vingt et une yooyu bu ñu reeree ba minuit reer ba nag loolu lu ne lay def loo xalaat ci kaw suuf mu jigi nag comprendre naa reer bi crédité lay commencé ganaar monsieur cere ah? am na beneen de supp supp boo gisee laax bi ñëw nag xamal ne boobu <laughs> xamal ne jeex na rek fruits yi entre fruits yi mooy ciy des dessert yi buñ dessertoo ba noppi nag zéro heure mu ne ma shérif ni ñëwal ma dugg ci biir néeg bi maa moom kenn duñu rax ba quatre heures du matin minuit ba quatre heures na de quatre heures mosuma génn néegam te du quatre heures du matin mu ne ma dawal léegi fajar jot bu ma yegg si Dakar rek ñu tombeel ñuy salaatu ma jubal jàkka ji julli doon a tëdd li ma gën a impressionné ci moom sëñ Abdou Alamine nit ku baax la pour jikko yu baax yi ñu doon wax xoolal li ma lay wax keroog bi Serigne Cheikh génne àddina yaa ngi ne la bind ko Cheikh Ahmad Tidiane le 15 mars muy mercredi fekk maa ngi jógee voyage nii ba gaaree ci bunti kër gi di wàcc sama téléphone sonné muy Tiwaawan ñu ne ma Serigne moo génn àddina ma ne ah man maa ngi door a ñëw kon teemaa tourne ki ma koy wax dama bañ a tudd turam mu ne ma balaa ngaa ñëw fekk ñu jullee ko ndax sëriñ doo ngi nii taxaw pour jullee ko alami te boobu li ma tax a ñibbi si sama altine bee jege si woon àllar balaa ñëw alxames ajjuma samedi dimanche altine moo doon sama altine moo tax ma ñëw sëriñ Cheikh génn àddina ma ne ah ba ma demee jaale ji bi pare ma ne ah altine daal mooy sama altine waaye duma dem ndax gàtt xel weesu wut sëriñ Cheikh amagul une semaine ma ne maa ngay dem ci sama altine bu ñàkk fayda bi wallahi lii may wax ku ko weddi laa jël docteur Ousmane Ousmane Dieng ak Yaquba Fay ma toog ba 18 heures docteur Yaquba Fay woo ma ne ma sëñ Abdou nee na sa altine bi tey la bu ko fàtte mais xoolal xoolal bii itte te magam bu mbokkal ndey ak bàyyi dem muy bàyyi xel man sama altine te Serigne Cheikh amagul une semaine ci ci Barzak ma ne docteur Yakhouba mais Serigne Serigne Abdou moom ki ciy dégg mu ne ma ah, man dañ ma yónni rek ma ne ko d'accord lu mu wax mu ne ma nee na boo jullee timis ba pare nga ñëw ma julli timis ba noppi docteur ba fay yegg si sama kër Sacré Cœur ne ma Serigne Abdou nee na nga may ko ba ëllëg ndax marocain yi seen délégation bi ñoo jaale si ci turu turu roi bi te bëggul kenn rax la ak moom. ca ëllëg sa ca mardi laa dem mercredi di une semaine Serigne Cheikh ah, kii sàmm na kàddoom wala sàmmul kàddoom sàmm kàddu bi am lu toll noonu ci tiis di bàyyi xel koo waxaloon ci ay weer waaye fa la mbaax mën a yem lii lii rek gis nga buñ ko defoon leçon ak bii ma leen di wax nii ci alaaji Abdoul Aziz lii may wax it ku weddi demal nga laaj alxaaji Babacar Sakho Mbay Sakho bu alxaaj suñu baay alxaaji Ibrahima Sakho dem leen ngeen laaj ko xanaa mu kay moom kañ mu ngi fii dem leen ngeen laaj ko Mbay Sakho mooy ànd ak lu bari bu Cheikhul Hadj Abdou Aziz Mbay Sakho moom la soxna mucc mu ñëw yëgal ko Cheikhul Hadj Abdou Aziz sëñ Abdou ne ko maa koy tudd si bu bés baa déglu leen bu baax na bés bi ko sëñ Abdou war a tudd Cerno Seydou Nourou doomu sëñ Abdou génn àddina ci fajar gi te 9h la sëñ Abdou joxe woon pour tudd ko Cerno Seydou Nourou génn àddina ci fajar gi moo topp ci Serigne Maodo bokk ak moom ndey ak baay sëñ Babacar Sakho Mbay Sakho gàddu liir bi indi ko ci kër sëñ Abdou ci pom bi ne ko papa dama yëg xew-xew bi am ne Thierno dem na may xalaat gan yee defar yooyu yëpp ma ne naa indi liir bi rek nga tudd ko fii ma yóbbu ko ci kër mu ne ko Babacar tooñ nga ma de alxurru xurrun maa lam yatakallam góor la fekk maa la waxoon ne maa koy tudd si delloo ji ko ca kër ga maa koy tudd si ki yóbbu Thierno moo fi indi kii seetal loolu mbay saaxo yóbbuwaat liiram 9 sa ñab du dem tudd ko toog fa di waxtaan bi midi yónnee Tiwaawan ne dañ ci leen caw kii doxal na ay hadis bii ma doon wax wala doxalu ko laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsi doxal na ko dëgg la wala du dëgg doxal na ko ba mat sëkk may ma may ma damay jeexal moo tax waaw may ma ko rek sarax ma ko maa yow bokk camp yaay yaay yaay centre may dugal amul problème ñoo bokk kan yàlla def kon lii ma doon wax ne nit li nga bëggal sa bopp da koy bëggal sa jaami sa sa jaamu yàlla yi sëñ Abdu doxal na ko lu toll ni doom topp ci sa taaw génn àddina nga waxoon na koo xam ne juróo ko ci deret waaye gëm nga ne yaa ko jur ci maanaa waxoon ak moom ne ko te mënoon ko def te dara du ko ci fekk ndax na Cheikhuna Tijaani radiyallahu anhu sëriñam mujj na du dem tudd ku am sa doom bëgg mu tudd ko xam nga nooy def da nga koy gàddu ba ca kër ga mu tudd ko ne la yóbbul ñu ne ko lu tax mu ne aada jee ci rax mujj na ku am néew bëgg Seydina Cheikh jullee ko dematul benn dëj xam nga nu mu doon def daf la naan indi ko ci bunti kër daaru miraal ci bunti këram nga indi néew bi teral ci bunti kër mu génn waaw ah, moom Seexu Tijaan koy daaneel loolu moom ñépp xam nañ ko Seydina Cheikh mujj na demul ngénte demul dëj soo amee néew danga koy indi ba ci bunti kër gi daaru miraar ñépp xam nañ ko ku dem faas di ziyaara ji mën nañ la yóbbu ba foofa da ngay indi néew bi ba ci bunti kër gi ñépp sàppe ñu ne ko ñépp yemb nañ mu génn du wax ak kenn génn rek ñëw taxaw allahu akbar ñeenti kàmbar yi asalaamaaleykum rek ko duggaat ci biir néegam du wax ak kenn ñu ne ko lu tax mu ne aada jee ci rax Haji Moussa lii mooy àddina lii mooy àddina nit ñi nag fekk yegguñ ci biir niveau liñ bëgg du saafarawu ma terminé ko ci beneen dollil la ko muy Serigne Cheikh mii xam nga ñun ñëpp xam nañ ko Serigne mii def na lu ni mel. xam naa ko bu baax ki mu ko def ndax sama rakku soxna la muy as as euh, euh, ni ñu koy waxee bi asiyatu si di doomu Serigne Cheikh moom la mayoon lamin Diak mii Lamine Diak sama soxna benn bële ñii xam nañu ko Karimatu Diak. baayam Aliyun Diak ak Lamine Diak ñoo bokk ndey ak baay moom moo ma may karimatu moom Lamine Diak kon li may wax xam naa ko moo doon denc Aasi aéroport Léopold Sédar Senghor boobu moo fi nekk Lamine Diak jël vol dem Monaco ko la nekk yàlla na ko yàlla génne waay ci xat-xat yi mu nekk ay tooñ rek la nag du dara àddina lëndëm rek défendre ma ko nag ndax sama goro déedéet dama xam te Serigne Cheikh Tidiane si nee na bokk ci coow li xam li xew a ko gën mu ne mën a waaxu xam yoon a ko gën mu ne bari pexe saf yàllaa ko gën Serigne Cheikh ñett yi la daan tegle mu ne bokk ci coow li xam li xew a ko gën mu ne mën a waaxu xam yoon a ko gën mu ne bari pexe saf yàllaa ko gën muy ñett yu am solo ku ko di def ci sa mémoire rek di nga dem yàlla dogal Lamine Diack dem teg bagage am moo ko nettali de ci kaw lalam di ubbi saagam téléphone fixe bu oto lam solo mu décroché ñu ne ko sa soxna génn na àddina asi mu ne ban asi ñu ne ko bi la gunge bi aéroport mu jëlaat vol ñëw li may wax it ku weddi demal nga laaj Serigne Pape Malick Sy Hadj Malick Sy porte parole di doomu Serigne Babacar si dem leen ngeen laaj ko dëgg la wala du dëgg wala alxaaji Malick Sy sa jinge mu baax mii ñu dem ci Serigne Cheikh ne ko defar nañu aasi ba noppi pour war ko yóbbu Tiwaawan ñu bëggoon nga jox ñu ndigal ndax buñ demee ñu wàcceel ko kaamil sëriñ Cheikh ne leen ëpp naa def bu leen ko wàcceel kaamil ñoom ñëpp ñu gàtt te ñun ñii ko dee ñu wàcceel la kaamil kat ba ci sama soxna bii wàcceel naa ko kaamil Fama Wade mii wàcceel naa ko kaamil tey gii Hadji musaa wàcceel nañ leen ñoom ñëpp kaamil kon wàccee kaamil baax na waaye kon lu tax sëriñ Cheikh tere ko ok. ñoom ñëpp ñu nga Serigne Cheikh ne aasi maa ko jur waaye alquran dafa diis yàlla dafa ne hudan lil muttaqina la yàlla wax moom alquran te aasi nag ragal yàlla ci xolam la ne woon man yegguma ca man Cheikh Tidiane digganteem moom moom aasi la ak boromam xaw ma ca dara kon bu leen ko wàcceel kaamil ñu ne ko nu ñuy def mu ne su ngeen demee na salaatu ala nabi yi bari rek ndax ki dem yërmande rek lañ soxla ci moom te yàlla wax yonent bi ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina déggal fi mu dégg mu ne yàlla wax yonent bi ne moom yërmande la rek ci mbindeef yi kon nag bàyyee dem bu ngeen demee rek na salaatul faatihi yi bari wala salaatu ala nabi yi ngeen yéene ko ko waaye bu leen ko wàcceel kaamil ndax ki dem yërmande rek xamoo ñaan gi li muy gudd gudd fu nit ñi di mujj yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko jeex na ñi jàng néew jullee néew bu waxee baat yii may wax moog ilimaan ji koy jiite ñooyam bismillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillahi allahuma ixfir lahu warhamhu wala boog jeex na mooy yàlla yërëmal kii te jéggal ko jeex na bi nee moo gën a gàtt ci ñaan ak loo mën a waxati rek loolu lay firi ngeen baal ma benn tukkulóor benn pël dañuy waxtaan ba mu yàgg mu ma sirif ma ne ko ah sirif la may wax nag mu ne ma suma sant bi moo dàq sa bos moo gën sa bos sax la ma wax ma ne ko ah bu la neexee de man ñemewu ma ndax inna akramakum indallahi atqakum mu ne maa ca ma wakk la bi tax mu ne nit bu dee lu ñuy wax néew bi amatul tur néew bi mu ngi ci morgue bi jël leen néew bi amoon na tur waaye néew bi rek lañuy wax mu ne buñ demee ba koy jullee nag foofu suma ma sant rek lay am mu ne man kala sant allahumma in kaana abdu ka ka mu ne suma sant rek lay am foofu suma sant rek ma ne ko wax nga dëgg de foofu du ñu wax allahumma innahu uh, abdu ay dara abdu ka mu ne jeex na kaka rek la man ma pour wan la nit dafa fonk boppam boo ko fonk lit moom fonk na boppam boo ko bëgg lit bëgg na boppam kon waaye ngir yàlla na ñu bëggante te yàlla li mu am yaatu na ñun ñëpp xaj nañ ci buñ ko yéene wante rek jot ci lii rek laa bëggoon xaj Moussa Wade indi ko ñun ñëpp ñu bokk ko di ñaan yàlla loo xam ne ci wax ji eh, jub na ñu santee ko yàlla te yëg na ñun ñëpp ñoo ko bokk xam nga lu tax ma gàtt arrêté ko fii xaj ma si la laa yërëm waaye ñi ci des ñëpp yërëmuma ci kenn yàlla xam na ko man yërëmatuma sama bopp wax naa leen ni yeggaguma sama kër te tracé yi ma def da bi ma toogee sax maa ngi naan man est nit laa ndax li ma def yëpp yëpp yëpp tey ci kàttanu yàlla bu du doon kilifteef du ma ko mën bu du loon Cerno Basiiru Muntaga Daaxaar mi ma ko sant duma ko mën waaye sa kilifa bu la santee booy jéem rek lu métti métti di nga ko mën gëw ma woon ne sax 9 dina ma fekk ci tant bi ndax fi ma dem yëpp ci journée bi fa tabaarakallaahu moom mii nag laa yërëm ne ndax nee na gàmmu la jëm man gàmmu yooyu nag dew ma ca ci benn <laughs> bu ma jógee fii nag sama ndigg lii commencé di ruux moom laay dem seet nu may def ba mu saafara <laughs> kon daal comme man dama la yërëm su su ma ñëwee sa wet di di nga nga gàttal dinaa koy def ndax nga noppalu man dama la yërëm ndax wax moom dafa metti waaye nag may la wax dëgg yàlla may la ñun ku ciy conférence wala ngay gàmmoo ab jukki ngay yor boo xam ni danga nga cay nekk di kat di di neet di xool mais yow doo yor dara te alquran bi aaya yi day ñëw addis yi day ñëw lépp day ñëwandoo xam nga loolu nag xam xëy na boo yendoo dox ba sonn di gëmmentu waaye njariñ li kenn xamul lu mu toll kon maa ngi jégglu mbooloo mi ndax man xam naa ni conférence bi xaajagul ndax heure yi mu daan tas jegeegunu ko sax waaye moom it dafa sonn dafa jóge ci voyage maa ngi jëm ci ñaari gàmm waaye maa ngi jëm nii di wàcce ab seet fii <laughs> nee nañu ma ma nga toll ca tuglu jóge jóge baa bay séeréer toll tuglu comme embouteillage amul léegi mu agsi ma dem léemu ko ba ko defee <laughs> moo tax nag jeex na ba noppi su ko defee waaw bi waaye weddi nag gis bokk ci weddi waaw. ok am nga kon weddi gis bokk ci dafa fekk ni lii ñuy def nii du dara lu dul wane wane jaar jaaru mag ñi ndax laxad kaan lakum fi rasulullahi uswatun xasana ñoom ñoo fi ñoo ñoo fi toogal yonent bi ba tax na du ma tey du def lii du wax dara waaye dafa am lu may seede seede bi may seede mooy sama sama waajur bi nu tudd sànq ba léegi e, moo nu jox wéeru ñun mooy suñu sët yàlla dafa def békki bii ngeen gis ma koy amee dama accidentoon maa ngi doon liggéey ONG international et d'action fa laa jàngi lii parce que fu nekk la ma daan yóbbu waaye e, sama waajur dafa ni woon saa yoo amee doom bu góor tudde ko Seydunaa Muhammad may dem di dem ba mu génn àdduna le 21 novembre 98 sama soxna am doom bu ma téléphoné sama mag xaaj Lamine Niang bi nekk jidda fekk ñëw na ma ni ko soxna si am na doom bu góor waaye sunu waajur dafa xool ma tudde bi yow yaay sunu kilifa tey parce que dafa toog bés ñi ma ñun ñëpp ñu toog mu dajal leen mu ne dootuma seen bàyyi la mu ne seen bàyyi xamoon naa dafay dem waaye le 20 le 20 le 21 la ko de le 23 mars dante xaw ma la xew ma nga ci comment yu tax déggoog sa soxna baax wax naa ko sama soxna xaaj la mi ñëw wax soxna si ni ko ah lu ñuy def sa sa sa sa sa borom kër de ma nga hôpital xamul la xew waaye yéen jur doom ji mu ne ko ah xaaj la mi euh, Cheikh Tidiane wax la woon ci téléphone ni la papaam nee na euh, nga tudde ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ah wax na ma ko de dama doon seen ndax déggoo ngeen lii nag du bàkku de billaahi wallaahi tallaahi ca guddi gi ma gént góor gi ngi sol basin bu vert ni til mun mun ko eh, papa ñëw mun ma bañ ñëw xam nga lu ma dem ni ko dee mun ma dama dégg ni danga feebar may naajoog sëcc la waaye yaa ngi tane ma ni ko waaw mun maa am na lu xew de waxtaan naag sa borom ci sa mbir ndax xam nga lu mu wax mu ko déet mun xaaj Tijaan Chame Tijaan mii xanaa xamoo ne dafa am cofeel ci doom bu góor ñaanal ko yàlla mu am njaboot yu góor mu ñëw ni ma maa ngi dem man ko papa toogal mu duma toog maa ngi dem waaye dinaa la jox garanti garanti bi mooy insha allahu di nga gën a jàmm billaahi xaaji euh, euh, Baba Gueye do do Baye Mansour bii ma fa ma pa ma tane dem seeti ko parce que sama mag xaaj la xalifa ñang dafa ñëw ci aaj Mansour ni ko sëñ bi soo waxul musibaam Cheikh Tidiane de docteur bi ne dafay dee mu ni ko sëñ Mansour ni abal leen ma xalima ñu abal xal mi commencé bind baaba ngay dugg si ak docteur hôpital sëñ Mansour ne yéen de yàlla moo leen indi sama doom jooju na wér waay xaaj sama soxna nee na wax moom ko nekk baaba gay mujj dafa mel ne yow yaa nekk hôpital ndax li mu doon toppatoo ma ne ko dafa jot ndigalu euh, kilifaam bi ma tanee ma dem seeti ko hôpital ni ko xaaji baaba mu ne waa ma ni ko dama am lu ma jaaxal lool man defuma santé naka ngay génte nekk ci biir coma te la ngay génte pa fàttiwoo ci virgule ndax dégg ngeen li wax mu ni ma cheikh mu ni ni ko nit yàlla ak sëriñ bokkul nit yàlla piir moo doon wax ak yow lii Baba Gueye wax na ma ko bi ci des fa lay jeexale xaaj sama sama sama mag xaaj la muy ñan moom ko nettali nee na sama papa daf ko woo ni ko am dépense bi jox ko sa yaay nee na mu dem jox ko yaay dem jox ko yaayam avant muy àgg benn góor dugg si mu ni ko xaaj na di di di di di dépense mu ni ko xaaj na mun kaa mun ko dama sëyaay ni ko mu awal ma dépense bi la ñëw mu jël dépense bi jox ko ki doon yobaan nee na bi muy génn laata ñuy àgg si buntu kër gi camion ceeb ak en enveloppe ñëw jox ko góor gi mu ni ko xaaj Lamin mu ni ko ah, mu ni ko kaay mu mu jàngal ko aaya ba ku joxe benn mu ni ko dama sëyaay nga mu mu mu tripleel yaay ñett mu ni ko moom moo nangu woon kon nag lii yëpp jikko nitu yàlla yi rek la te ñoom dañuy làqu nag waaye lii lii waxu ko tey jii rek tey jii rek mi ngi nii 2005 la commencé la prière euh, dëkkaale environnement dégg nga ak ak waajur riba yëpp moo ko def ba tey 2019 waaw li taxoon nag muy bañ ni ba jayuñu ko déedéet ni mu ko waxee noonu la volable ak kii valable ak Abdou kon nag ci gàttal lii rek la ñu bëggoon wax di di di di gërëm bu baax xaaj Chérif xa euh, sëñ Moussa jox naa la benn cadeau pour nga jox ko. waaye moom mi jox na la benn jox naa ko benn kàddu pour mu jox la très rapidement rek mën mën ko jox waaw. ndax lu mel nii bu amee am na ñu ca jàpp ba mu taxaw El Hadj Moussa mu ngi tudd ñii rek waaye ñépp la ci jublu mu ngi ciy jiital aji jàlloo nee na mu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu di sant tamit Adja Ulay Wade. mu ngi koy sant di ko gërëm ak Daba ah. Saale Saale. Saane Daba Saane moom it mu ngi koy sant di ko gërëm ak imaam seydu Sow ak les délégués de quartier bi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel di eh, notable yi yëpp ak eh, Alioune Gueye di nuyu tamit amadu Tidiane fayi di nuyu représentant grande mosquée bii fi nekk. moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm nga xam ne moo fi teewal mosquée de Afia SDE Boune di sant tamit hmm, Yuusu walla Suleymaan Masilla Kan Masilla ah alxaaji Masilla Kan koy moom kenn du ko sant maak ngi moom <laughs> waaw moom mooy man maay moom wax dëgg yàlla te nit du sant boppam moom li muy def di sant tamit bu baax a baax ci Tidiane ñan wala bàyyi suñu bàyyi laaj Tidiane Niang bi doon wax léegi di sant nag waa këram yi maire yi nduura ak mboolem seeni njaboot ak ñi représenté cité pépinière yépp mu ngi leen di sant di leen gërëm ak monsieur le maire Issakha Diop sama bos gisuma ko nag waroon naa ñëw de yónneewul joxewul ngant dinaa ko amande moom xamante nañ sama xarit la moom ak euh, monsieur le maire Diarra Amadou Jara samay xarit lañ nag wax dëgg yàlla su ko defee kon ñii lañ doon tudd ak ñi jot a yegg si eh, mbokk bu baax mi dend ak alaaji Tidiane alaaji Massi alaaji sëñ màggat ñu ngi lay sant bu baax sëñ Abdou Aziz wax nañ ko fa tabarakallahu ak suñu soppee bopp bale di xaaji Ousmane Konte ak ñépp rek fa tabarakallahu waaw ah, Isaaxa ah bu ñëwee ñaan gi dab ko rek ñu ngi ñaan kon ah, ñu jox imam eh, déedéet yaay ñaan xoolal man maa la xool ba nga doy ma ni ma seex doyloo man maa la doyloo noonu te xaj ma si la ànd la ci su ko defee yow nga ñaan nga ñaan rek yàlla mi la teg fii moo bëgg nga ñaan man bëgguma nga ñaan de xam nga fi indi woo fi sa bopp yàllaa la fi indi tegoo fi sa bopp yàlla la fi teg turandoo wi tamit dana tax boo ñaanee mu nangu ñaanal rek wàññi sa barke maam lañu mu ne mu ne am na ñu jotul tudd am mu ne wooy mooy ñi jóge Banjul dañ leen war a tudd sama mbokki Gambie yi mu ne nduura ay rakkam ñëw nañu jógee Banjul mu ne ak jóge jógee Kaolack Why do you not sit the name of my family in Banjul? ah, ah ok su ko defee nag danga leen waroon tudd nag ndax Banjul ak fii sori na nag waaw ah, ah ak daayira xale yi fi nekk jàpp nañ ci yëf yi ku gis ni yëf yi mel rek nga xam ne yéene tàbbi na ci mu ne ak daayira soppe da baax ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak sama caméraman bi bu ñaawut bi rajo Omar Diop ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm nga xam ne balaa yàgg rek àddina bi yëpp jot ci mu ne papay taaha maa ko xam maa ngi ko xamee woon ca sëriñ alxofu alfa mu ne keroog bañ nee faatu na sërif Zakaria waa kër gi commencé di yuuxu mu ne bërit ne bu jib keroog fa la yem kenn waxaatul te moom mi mooy jóg ne bu mu bu mu jib ba pare nag daldi moom waaw moom moom ci boppam mooy jóg ne bu mu jib dal faatu ñépp noppi mu daldi dem ma dollil la ci beneen dafa feebar dem hôpital moom shérif Zakaria bëñ moo ko doon metti sëriñ xumma mii may wax tey sëriñ Alfa xumma boole kook benn docteur mu dem docteur bi di ko seetal bëñ bi ndax dañ koy sonde est-ce que dañ koy dindi wala dañ ko ci bàyyi bii mu ŋaangee rek docteur bi xam docteur bi ci boppam moo xam ñu tëpp tëppal ba jóg ne ko lu mu ne bi shérif ŋaangee leer bi génn ci gémmiñam mosu ko gis moom ba mu ba tey ku doy la woon shérif Zakaria jur xaasim bii ñuy wax nag waaw fa tabaarakallaa xaasim xaasim sama wëllëre la woon wax dëgg yàlla image bi dafa mel ni tey la ci man bi mu ñëwee ndeysaan boobu mu taab yaa ngi ko sonal mu toog ca suufu tant ba ne la ca baas ba ca suuf ma ñëw fekk ko mu toog ma ne ko xaasim lu xew mu ne ma ay taab rek moo ma sonal moo tax mënu yegg si ci biir tant bi damay ñëw def acte de présence rek après ma dem ñibbi keroog laa ko gëj gis ba ni mu génnaat dina ndeysaan ah tabaarakallaahu kon yal na yàlla dolli leeram mook woy juróom ak woy juróom wu jigéen wa faatuwaat tuddee na soxnaam faatu wàdd doom muy faatu xuma kon mook sëriñ xuma it sori woon nañ waaw sërif Zakaria nit ku doy waar la woon Zakaria ay dara xam naa ko bu baax a baax a baax mag ñi ngi fiy wax ñépp dama leen xam man xam bu wér nee naa la léegi laa jógee kër sëriñ xuma ndar léegi laa fa jógee léegi kon yal na yàlla dolli sutura xaaju ma la ñun ñëpp nañ gis nga na xol yi set rek billaahi imaam bu xol yi setee yàlla li mu am xajut ci ñun ëpp nañu ëpp nañu imaam konte yàlla li mu am ëpp nañu na xol yi set rek ñu yéene wante ko billaahi daañu dund ci àjjana dee dem àjjana ñu dund fii ci àjji àjjana bu neex ba neex neex dee dem àjjana dund ci àjjana weesuwul loo bëgg mu faju wala déet loolu mooy àjjana biti di nga dee nag dajeeg yàlla mu dugal laa jën jeex na loolu nag xam nga lu ko mën a may xol yu féex na xol yi féex ñu yéene wante yiw di ko wax lante di ko dem lante di ko def lante bu saxee rek yàlla wàcce yërmandeem ci ñun yàlla nañu ko yàlla boole defal yàlla bu mu nekk suñu mujj daje ci kaw suuf yàlla nañ ko fi dajewaat ay yooni yooni yoon yoon wu ñëw yàlla na dàq bi weesu te lu ñu ci yàlla màngal ci koom ak leer ak njëggal bu ñëwaatee yàlla na ko ëpp réew mii di Sénégal yal na fi yàlla di sëmbartal jàmm rek ak salaam di ko fi sotti nañ koy ñaan de moo tax ñu mën lii su jàmm amuloon lii duñ ko mën kon yal na yàlla dolli sutura daa man defal ñu sutura daa iman defal ñu sutura daa iman may ñu gudd fan may ñu wér wér gu yaram yaram wér gu yaram xol ak wér gu yaram roox yal na ñu ko yàlla defal te may ñu nag wërsëg yu yaatoo yaatoo yaatu ay milliards ay milliards yal na ñu ko yàlla may du bëggee de. sëñ si sëñ maxtar Mbàkke mii sëñ Moodu Maxtaar Mbàkke bii xam ngeen ko bu daaru muxti bu daaru muxti fii la toog Alaaji da Aziz réception gàmmu Tiwaawan góor gi di waxtaan ne koo kan la mu ne ko man la Moodu Maxtaar Mbàkke papa dama bëggoon nga ñaanal ma yàlla mu may ma xaalis bu baree baree baree bare man xaalis laa bëgg réception ñëpp ngi toog de Alaaji muñ ree ne ko sëñ du Maxtaar yal na nga am million yu baree baree bare mu ne si papa nag tas nga sama yaakaar yu yàlla li ma am nga di ma ci ñaanal million nel milliard million daf may sonnal rek ndax wàññi bi dafa may sonnal nel ay milliard góor gi ree ne ko sëñ Modou Maxtaar yal na la yàlla may ay milliard mu ma ko nettalee ca ca eh, njaareem yebal ca kër sëñ Koso Gànnaar mbakke yal na yàlla dolli leeram ñoo ñoo bokk dekkoon ca amoo gàmmu gi mu fa daan amal at bu jot fa ma ko moo du Maxtaar Mbàkke nettalee mu ne ma ba ma ko góor gi ñaanalee teguñ ci tuuti laa njëkk a téye milliard ñaan am na de billaahi ñaan am na nañu te ñuy ñaanalante rek bu kenn amee shérif mii bu amoon milliard du sédd alaaji ma si la léegi mu mottali kiyam bi wala déet alaaji ma la bu amoon milliard du ma sédd ma dem <laughs> kii rek du ma wax sax ma ciy def mu ngu nañ ko yéene wante rek te yàlla tax yal na yàlla dolli sutura kon ñu jox imam mu ñaan ah xanaa ñu ormal ko rek comme yegsi na yow nag yaa doon yëkkati moom eh, eh, dañuy ñaan rek imam dañuy ñaan wallaay yàlla xam na ko togal togal nii moo. ba pare nga jox ko mu ñaan yàlla sédd yàlla moom la neex mu def la meer magoo fi ëppoo xam-xam waaye yàlla ne yaa koy nekk mu def la ko. loolu yàlla dajale ci xolu jaam ñi bañ teg ko ci sa loxo nag yaakaar la kon feeñalal yaakaar gi rek bismillah euh, asalaamaaleykum aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani maa ngi nuyu di bu baax ci jotaay bi nga xam ne euh, jotaay yu ëpp solo ci ñi am wërsëgu bokk fii ci gox bi euh, ci la bokk di ci gërëm nag sunu sëriñ sunu sang muy Chérif Ibrahima Aïdara comme ni mu ko waxee sunu sëriñ la sunu soppe la sunu conseiller la yàlla dogal mu bokk ci ñi ñuy gën di déglu te ay kàddoom ñu di ci jëlee njëriñ lu bëree bëri bëri te di ko doxee di ko ñaanal moom tamit yàlla yàggal ko fi loolu may ko wér euh, xam nañ yéeneem ci ñun xam nañ yéeneem ci askan bi yëpp di ñaan suñu borom mu fayee ñu la di wax ne suñu sang nga sagul islam yëpp nga ñaan yàlla yàggal la fi lool nuyu bu baax suñu imam imam masila di ko ñaanal moom tamit gudd fan ak wér ndax moom macha allah régulateur social la fii ñu seedeel la ko Chérif ci taxawaayam jaarale ci moom rek kilifa diine yi nga xam ne yëpp lañu fi fekk imam Konte imam oustaz Abdou Aziz sunu sëriñ donc imam euh, Guèye ak yeneen kilifa diine yi fi fekk yëpp jël nag nuyoo gox bi teg ko ci loxo sunu baay Moussa Wade di la seedeel kii sunu wajur Euh, am ci ñun kilifteef mais di am lu bëri lu muy def te suñu jëmm rek tax di ko def ci ñaan di ko def ci yéene ndax sopp bi ñu sopp wala ñu ci njabootam di ko wax ne wayjur lañ ko jàppee di ko ñaanal li ñuy ñaanal suñu wayjur ndax ki la def ni boppam da nga ko war a def ni sa bopp te macha allah daf ñoo boole ci njabootam yéene ñu di ñu jàppale ñu dooleel. di ñu may nag wërsëg ñu di la am at mu jot ci jotaay bi ndax li sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al doon wax ne lu am rafet su amul woon ñaaw te bés bi yaakaar naa ne Pikine Est soxla woon na ko at mu jot ñu déglu la at mu jot ñu taataan ci macha allah xam-xam bi ak li nga xam ne ni mooy yiw bi mu ñuy andil fii ndax Seydina Mohamed mooy sa maam wante nag ku la xam. xam sa diggante waa euh, sunu maam El Hadj Abdou Aziz Dabaax nga xam ne soppeewu ñëpp la ci réew mi ndax taxawaayam donc gërëm ñëpp sant ñëpp di jégalu guddee bi yàlla dafa dogal ñu nekkoon ci beneen programme bi fi jógee man mii ma amoon xat-xat yàlla dogal ma am ku ma doon seete hôpital moo waral ñu xaw a guddee mais bés bi moom wax dëgg yàlla ñoo war a lal basan yi daal di takk bâche yi bu ñëpp demee ñoo war a tekki lépp delloowaat ko ndax fii duñ fi meer fii njaboot lañ fi ndax kii woote bis bi ak ñi ko seq ñëpp yàlla dogal na ay wayjur la ñun wax na nag ñëw nañ fi ci délégation bu ñu ànd ak monsieur le maire ay dara yore wàllu environnement ànd ci ak le délégué de quartier Fara Dafe ànd ci ak sëñ Makhtar Diop donc ñu ànd fi suñu bopp nag fekk suñu bopp ndax ñi ci fekk ñëpp kenn ku nekk ci ñoom mënuñ laa dugal ci délégation bi sama yaay Ndoura mënoon na cee bokk madame le maire Binta Gueye suñu yaay ñëpp yaakaar naa ne buñ leen mboolewoon ci délégation bi mun ci bokk ndax ni ñu féetee ni ak fi ñu féetee donc loolu lañ amoon ci ay kàddu di sant di gërëm ñëpp delluwaat rek chérif di suñu loxo di sàkkuwaat ñaan ngir yéene bi nga xam ne ni askan wi ak kóolute bi nga xam ne am nañ ko ñun ba dénk ñu yàlla may ñu doole may ñu kàttan ndax suñu borom rek mën ba mun a mottali ñoom seen yéene ci defar gox bi ba mu gën a mën a jëm ci kanam loolu la ñu amoon ci ay kàddu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne am nañu mbégte fekkee bés bi di ñaan yàlla ñu fekkee war ko ñun ñëpp déwén kenn ñun bañ a màggee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ah jazakallahu xayran monsieur le maire yow kañ moom sa ñaan yàlla def na ko ba noppi ndax yaa ngi ànd ak yaa ne Chérif Aïdara monsieur le maire muy maire di sëb yonent bi loolu moom. Ah, la maa moom doon na woon la doon na rek nii la de fi nga toog baax na rek foofu la de gën a la monte na te ànd ak moom ànd bii daal bu mu dakk bu dakkul rek dañuy jur lu baree baree baree bare ah, bu dakkul dana lu baree baree baree bare kuy sa maam rasulullah nga nekk meer ah mën ngaa defar lu bari bu ngeen àndee rek yàlla bu ci seytaane am yoon yàlla bu ci seytaane am yoon yal na leen yàlla bàyyi ak seen i ba li ngeen bëgg ci diine ji bëgg ko ci politique bi bëgg ko ci mbokk bi bëgg ko ci koñ bi bëgg ko ci defar yàlla teg ko ci seen loxo yéen ko xam nu ngeen ko bëgg yéen ko yàlla defee noonu yàlla li mu am ñëpp xaj nañ te kenn du loolu mbir yi dañ ko xatal rek dañ ko xatal rek waaye billahi bu yaatoo billahi bu géew bu yaatu woon ñoo xam ne yàlla moo tabe ñëpp xaj nañ ci bu boobaa sa parti unique mën naa am te du tee ku ne si yàlla yal nañu yàlla dimbali nag defal ñu sutura monsieur le maire kontaan nañ ci turu El Hadj Moussa laa lay delloo kaddu ak ñi nga àndal délégation une forte délégation ñi nga lim ñëpp ci délégation bi lañ bokk yow soppe nga lépp nga mbir mi ñëpp a ko bokk man politique gu ma waaye ci mi laa bokk nag Chérif dëgg la wala du dëgg du ala du lim daan wax mu ne su ma doon doxal li ñëpp di doxal dama naan am naa ci code part nañ ma ko jox mu ne waaye du ma doxalee noonu na lépp bu baax ñu jëriñoo mu ne man ab noonu laay doxal man loolu mooy sama initiative ci politique na lépp bu baax rek ñu ñëpp jëriñu Hadj Moussa nee na mu ne mu ne politique ma ma waaye politique nañ ma ma dëgg la de waaw jërëjëf yàlla yàlla dool di sutura waaw fi ngeen ci foofu la rek doxal leen fii ñu jàpp fii ngeen jàpp fa li ñu dajee mu yëpp baax jeex na lii rek a fi nekk temporel spirituel dëgg la suñ dajee rek waxtaan penc mi jël dara newu fi lu ñaaw la rafet politique xaraamut foofu lay jeexale sama kàddu jox imam mu ñaan xam nga lu tax nañ bàyyi politique dafa xaraam walla léeg sa sax nga dégg ko naan politique ku mënta boole soow ak deret naan ko bul def politique yooyu ay waxu caaxaan la ku la wax ne politique soo ak deret la yow yaa ko ko tuddi waaye du soo ak deret ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum fa huwa xayrun lissabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala takun fi dayqin mimma yamkurun inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinun lii mooy politique lii la yàlla santoon yonent bi ne ko boo bàyyi boo bëggee gagné terrain bi doxaleel nii tous les politiciens buñ jaaree foofu rek dañ man maa la ko wax lu jafe la nag waaye billahi bu ngeen fa jaaree lu ngeen bëgg di ngeen ko am mooy yoon te bu fekkee ne lii ñoo wax di dafa xaraam sëriñ si yenn sëriñ si ko yor kon bu politicien bi toogee indil la ceeb bu ko lekk bu la joxee enveloppe bu ko jël bu la yónnee dara bu ko jël ah moo dëgg loolu de waaw bu fekkee dañ ne dafa xaraam nañ leen ko bàyyee ñoom te buñ toogee yaa leen di njëkk a sollicité kon ak fu nañ eh, bàyyi yéen jaaxal yooyu kuy politique nañ ko bàyyi yéene ko rek mu am ca lam ca bëgg fa nga jàpp nga am ca la nga fi ñu bëgg rek waaye politique jàkka ji sax am na ku fay dem koo xam ne dafa xaraam ci moom ki bàyyi ba ñëpp kàmbaar mu ramassé daal yi dem kooku <laughs> kooku lu lim def baax ah, mën na ko génnee ci jullit waaw kooku ca bunti jàkka ji lay am na koo xam ne dafa dugg si biir jàkka ji ñu ne allahu akbar mu ngay lux luxi poosi monsieur le maire man taxu nañ ma fii ci jàkka maag imam Moussa Gueye ak Kabir Kane ba Alaaji Ousmane Gueye kan ñun ñëpp lañ raafal suñ kalpe yi keroog ma mos a sàcc waaye keroog lañ ma gëj a sàcc bu Sénégal ubbite juma ubbite juma fii sac Sacré Cœur 3 Kabir Kane ba Alaaji Ousmane Kane moo doon ilimaan ci man imam Moussa Gueye Kabir Kane ñun ñëpp lañ raafal suñ kalpe te ña ko raafal man ci sàppe kanam bi laa taxaw kon moo lay won ne faa yi ko raafal ñu ngi te man nag faa laa seen daloon te man jëlu ma ko ah nañ ma xamante dëgg man jëlu ma ko imaam it. waaw salaamaaleykum bu ko defee ñu bokk def ñaan rek ci ndigalu kilifa gi muy Chérif Ibrahima Aïdara Tijani kon ñu fas yéene jàng fatiha jàng salaatul fatiha jàng ayatul kursi ixlaas falax ak naas ñu tëjee ko salaatul fatiha rek yéene ci aaju yëpp waaye nag ci ndigalu shérif lañ ko defee ak masila kam malik ñoom bu ko defee ci seen ndigal lañ ko defee waaye rek mu nuyu kenn rek muy Abdul Aziz Wade ñu ngi koy nuyu te di ko ziyaara bu baax a baax ndax suñu teew teewaay bi yàlla ak jëmmam la Aziz may moom xam na ma xam waxu laa yàgg waaye daal kon ñu jàngaloon ci diggalu shérif yéene ci aaju yépp incha allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal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 man dha alladi yashfau indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin idha waqab min sharri nafaasaati fil 'uqad wa min sharri haasidin idha hasad qul a'uuzu bi rabbin naas maliki naas ilaahi naas min sharri waswaasi naas allazii yuwaswisu fii suduuri naas min al-jinni wan naas barakati allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatixi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim salaatan tamla'ul azala wal abad zamanan maa kaana madrabatan bi kulli 'adlin ba'da al-'ilmi yaa Allaahu yaa Hayyu yaa Hayyu anta huwa lanaa mahal al-fadl wal-mann yaa awalan yaa axiran yaa zaahiran min masaalikal abdi mutazallil laa yabtali allahu jalla jalaaluhu bi balidin xaraamin zaalika subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin